te ña nga xam ne ñoo ko organisé yàlla rekk a tax ñu organisé ña nga xam ne tam dañuy wuy si yàlla rekk a tax ñuy wuy si kon nag yàlla lañ fay wër te incha allahu lañ fa gis fekk yàlla yàlla moom foo ko tuddee ma nga fa waane foo ko tuddewul it ma nga fa moom yàlla li mu gën a tële mooy ñàkk fekke waaw su ko defee bala maa wax dara dama bëgg ñu def fatiha def fukki xul huwa allahu ak benn ñu defal ko sunu doom jooju tuut tànk bi fi jóg di doomu Cheikh soxna Awa Seck ñu ko man de ah ko léegi wax yàlla dama ko yéex a yëg nag wallahi dama yéex a waaye nag ñu la koy jaar bu baax te di la xamal ne ñoo ko kër Alaaji Babacar Seck su nekkee ci mbégte da leen wóor ni kër Alaaji Mouhamad Ndiéguène ñu ngi ci mbégte su ñu nekkee ci naqari ñu ngi ci naqar yàlla xam na loolu la yàlla def kenn mënu ci dara ndax ca mag ña mag ñaa def كنا نقلب فاتحة فك قل الله أكبر إلى روحي الرجل سخنة أوسع ويا ربي نسألك أن توسع صدرها ويمن كتابها ويسر حسابها وثبت أقدامها عند صراطك واصلها جناتك النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين آمين am sama benn mbokk am sama benn mbokk yàlla waaw ñuy wax de nee na mu mu gis xawa juk sol lu weer ni ko mang lay yobante sa papa ne ko jotna lepp lépp yóbbante yëpp jot naa kon ngeen boo ñëwaatee ak bis bi joxaat ko yóbbante yàlla doolu na ñëw jërëjëf nekk mi nga xamne mo ko ko alaaju moom jigéen xam nañ leen bu baax ci seen ànd te ànd bi yépp diine rekk tax waaw diine rekk taxoon ñu ànd dara taxul woon ñu lu yàlla ak yonent bi ak Cheikh Ahmad Tijaan kenn ndax góor gi da daan toog ba mu yàgg sax am soxla mu mag day wóolu góor gi jiisoo caab bu moom góor gi daal di koy woon yoon ni ko soo defoon nii jege nangam nangam góor gi topp waaw góor gi Babacar Seck su famille am diggee nii lii wax dëgg yàlla jomb ñu naan pël jombul xaw ma soow jomb pël mujj waaw waxuma sax ñii jël seen kurus jox ma waa ne safoo bi man xam naa ne safoo ngir ñi yàlla xam na wallahi alaaji Usmaan rahimahullah Seck daf ma daan safoo lool lool ba ku jóg mu ne la demal ci barab demal ci barab du am mukk xewu jàmm lu dul daf may woo mu ñëw ci surtout xale yi suñ leen daan tàkk man mii la doy loo woon ca xutba yi waaw ajambee gayam mbaa ngeen ji ah moom fekk na yëpp xam na yëpp moom it da daan encouragé tout le temps Ousmane ci man nga xam ne ni Ousmane man fonkoon na ma lool bëggoon na trop waaw te yàlla rekk a tax ndaxte newuma koon ci dara am na nag yaakaar bu mu amoon ci man ci yàlla ak yonent bi ak Cheikh Ahmad Tidiane amoon na ci yaakaar waaw ndax fu mu gisaan ah baro bàyyi yaa ngi góorgóorlu waaw wala mu jógi xam na ne maa ngi góorgóorlu ndax am na yu bari yoo xam ne man mii la ci wóolu man la ci man rekk la ci wóolu ah lu ci bari bopp vraiment kon fi la ñuy xaaw fanaan te it damaa bëgg mbay mii وحداني الاخ وحداني وحداني مي دي انكوراجيريك سونو دوم اوسمان كي نيمو ديف ا آه، سوكو خالي ييب ديفون ييب نيك ييب گن با واو آه. مون توتي ريك دو كومان وادي ييتيم اك يينيم motax mu man soo yéenee rek yàlla liggéey su ko defee moom ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax duñ ko gërëm teel na waaye dañ dañ koy ñaanal yàlla waaw ndax am na yu baax yeneen yoo xam ne ni yaakaar nañ ne dina ko def kooku nag doo ko doo ko gaaw gërëm waaw ndax mën nga ko gërëm yëpp boppam dootul def dara waaye nag suñ ko ñaanalee su mu bëgg a yàgg dina fa yegg te dañuy xaaru ca moom it dina am incha allah ndax xale bu baax la boo am yitte boo xamee ne boo am euh, gis-gis hmm? tabaarakallah am yitte ci mbir lu jëm ci yàlla sëñ sëñ bi ma woo ko ne ko dangay te ñoo dem waxoon na ma ko tey xalaatoon naa caa dem euh, te maa ngi doon ayoo nañ dem bu ñu xaar sax waaw muy alaaji set njëgit doomu bàyyi Aziz njëgit waaw mi nga xamee ni ah, kër gi de moom fonk na ko lool baax baax baax waaw taalib bu wér wér. sëñ Mbaye ndigal jëm na. ah. xam am na ñoo xam ne buñ la jeyee rawatina Thiès wala Sénégal buñ la jeyee rek boo moytu mën ngaa sa xilaaf. bay jeyeeku. waaye di daal ñu wax ko ne ko yow da ngaa nuru. àdduna koo gis ñaar la. waaw waaw. kenn dong mooy kenn mu yàlla subhanahu wa taala yonent bi sax am na kuñ ko doon nuróowaale koo gis ñaar la yenn saa yi nga dem ci benn dëkk di dox ne ah eh, kii du moom nga romb xam ne naka du moom koo gis ñaar la parce que yàlla du wedd boppam dana xul wallaahu ahad leneen lu mu defaatoon sax day wuteeg loolu ndax yajibu lillaahi wujudu wal ترى البقاء والإنام مطلق عام وقلفه لقلقه بلا مثال ووحدة ووسم وفعال وقدرة إرادة عين وحياة سمع كلام بشر زي واجبا كين يا الله كين دمم يوني تبرا فاجنا دي ويا الله قولا تير ميريون موكو كنا رفت دنكو تارو باقو كو سنسي gën koo rafeti bët gën koo rafeti bakket am na ko ndax xulillahuma malikal mulki boo demee ca feega dana bi yeddikal yeddi kat te moom moo wax de alxuraan a wax moom yàlla moo ne bi yeddi kat kon am na loxo léegi nag wa xulfuhu li xalqihi bilaa bisaab kon li mu am ñu ne moom bokkuñu bokkuñu kon kenn du yàlla lu dul yàlla neen la lu dul yàlla du yàlla kon mbir mi yàlla la waaw waaw yàlla la imam Chibli ci yow laa ko déggee histoire bi imam Chibli Bagdad la ne imam Chibli ah ah waa ji ñu doon tey ñu wax nga dëgg waa ji ñu ne Macky Sall lay nunul bu dem jëli ut yére kenn moomu ko du jënd rek mu jënd dàgg sol def ala màkki teg doxin doxinu wax waxi màkki ñu xool xool gisul fenn fu mu natt rek xam ni dayul parce que màkki bi siw mu ne maa ngi dem capital ba dagg paas dem capital ba d'accord ñëpp naan nit mu daggaat paas jëm fale oh. mais bi mu jëmee pale bëgg lu yomb xam bu fekkee tëni Cheikh yaa ngi yow mi gis màgg jox la koy jàkkaarloog muy mën ngaa dox lu tolloog 500 mètres da ngay jàkkaarloog moom. waa ji il maa mu jaar ci côté yi mu jaar ci digg tali bi waaw xam ngeen saa yi gis nga jey baaxul noo bi nga ko jee ba jàng la boo moytuwul di def erreur bu garaaw Iba yaa ngi dégg les deux ba yéen a ngi dégg maa ngi ñëw. rek waa di commencé dox ndànk ndànk ko di ma dox ndànk ñu am na i eh! waaw màkk yi dox fi mu jàpp confiance day am mu jàpp confiance gën dox gën jege ñëw ba ci bunt ba toujours xam ngeen ni daa am benn section ñu koy yore d'abord gendarmerie la ci biir gendarmerie ñu jox ko waa garde rouge ndax ñëpp xam nañ ni fi rouge am jàmm am mu ñëw taxaw ci kanamam ne ko yow gis nga mo mu ne gis na la mu ne ko gis nga ni ma mel mu ne gis na la xool nga ma mu baax ak ni ma solo mu ne mu ne ko dëgg-dëgg man kan lay nuru mu ne ko ku rep rek ngay nuru moo tax imaam ku toog ak yeen bu bëggee lu baax bu dee ma bu dee naw la bu ñu téye day jël lépp delloo wax ndax amuñu lu dul lu ñu am lu seen bàyyi waaw ñun alaaji ma du ñu gëm moom lañu ñu tombeel ñu xam ko bu ñu tombeeloon alaaji man la dañ ko ciy boole par force mais nag dëgg-dëgg alaaji Moodu la ñu tombeel ñun ñëpp nag waaw waaw maam Asi nee na ma amee fukki at ak benn la génn àdduna onze ans maam Asi onze ans mais attention moo ñu ngénte ñun ñëpp moo tudd moo taxaw ñun ñëpp kon bu bàyyi yàlla defee doomam ñëw bu dee da ngaa gëm nit nag bu ñëwee da nga koy jël teral ko ko. billahi boo waxoon thème bi barke Nabil Moustapha du ma wax mën nga ko nag da ngaa baax moo tax nga jaare noonu di nuyoo di gërëm ak inna anzalnaahu di an am min juy wa aamanu min xawfi mais loolu xam nga ne waxuloo wuñ la ko sax mais yaay def. mbokk yi léegi nag ñu dugg ci waxtaan bi yàlla ni yàlla doole jàmm